Wally Ballago Seck. moom yàgg na ko def. yàgg na moom yàgg na ko def yàgg na ko yàlla barkeel. yàgg na ko de tase nañ ay rapport tase naa moom fii ci ci ci ci ambassade Amérique. Mhm. fekk may jël sama visa pour dem di tukki. Mhm. waaye Wally keroog ba ma gisee dafa génn rang bi bàyyi la mu doon def dindi àddiya ñëw jox ma. Mhm. yàlla na yàlla guddal fanam te barkeel yëngoom te dolli barkeel.